Hazır. Be. Hangi şanlı? Boy, man je suis pas pour nous déclencher parce que micro bi moo tax. mais demal micro bi. ngay mute fii ba mu

xoolal Diallo il faut après am ko ma vérifier

may wax dama ko bëgg a wax euh, sénégalais yëpp seede ma parce que damay may wax c'est des informations de première main yéen yéen ay gérer sécurité foofu wax leen ko waa APR dañoo recruter ay ay de nervis nervis yooyu nag ñu ngi fépp taxaw ñu ngi ci VDN bi ña nga Parcelles Assainies ñenn ñi planifié nañu dañuy ñëw attaqué sama kër ñuy jël nag Sénégalais yëpp à témoin parce que loolu Macky Sall ci boppam Macky Sall ci boppam ci liñ ñu wax ci information ak soxnaam ak doomam ak benn général bu nekk pare ñooy coordonné directement ak nervi yooyu di leen jox ay instructions bu dee nag Macky Sall guerre civile bëgg ci réew mi du am waaye. lii mu nekkee bu ko continuer liy tooy ci moom lay jóge loolu daal laa bëggoon a wax jël Sénégal à témoin je le dis en français également pour la communauté internationale et dire que Macky a planifié avec sa famille, son épouse, son fils, d'après les informations qu'on nous a remises et qui sont des informations de première er mai, ils ont recruté des centaines de nervis armés pour euh, s'attaquer physiquement à nous, s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et l'autre objectif de ces nervis, c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yewwi Askan Wi je tiens à informer l'opinion nationale et internationale ce que je dis les forces de défense de sécurité sont informées elles le savent très bien mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Macky Sall si l'objectif de Macky Sall c'est de créer le chaos dans le pays de créer une guerre civile je dis à monsieur Macky que c'est voué à l'échec il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personnes, parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont, nous savons qui les recrutent, nous savons où ils habitent, nous avons des audios, nous avons des vidéos, nous savons qui ils sont. Et ils ne représentent rien par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. donc je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile au Sénégal, mais Macky Sall de finir mal son second et dernier